téléspectateurs yi safoo di seetaan sans limite duy waat nañ leen tey ñu ngi fii ko gis fii xam ne marché Dior lañu nekk Euh, tey nag di 14 février 14 février ko dégg xam ne jour Saint-Valentin la waaw fête des ñu ñëw fii tey gis nga baax baax yi nekk sama ginnaaw ni war fas yeneen laaj xale yu jigéen yi ba ci xale yu góor yi sax di leen laaj nan la ñuy paree seen Saint-Valentin di leen laaj nan lañ koy dundee parce que ñu ngi koy enjoy ñoo gis ay clients di dugg ak génn léegi dañ leen di xuus jàll ñu xool bagage yi dem laaj nit ñi nan lañ koy dundee tey journée Saint-Valentin la journée Saint-Valentin bi mun naa ne jeexagul parce que day dem ba guddi bu ñu neexee sax ñu palaare ba suba incha allah ñu ñëw ba tey euh, Euh, ñi ñaa ngi bégal seen soxna yi ñi ñi ngi bégal seen gel yi ompa peut dire ñu ñëw fii fekk si sama benn góor mu war a jëndal soxnaam or nag la laal moom euh, ci fête bi nuyu naa la oui ça va bien tur bi naka la euh, Papy Diouf yaa ngi enjoy sa Saint-Valentin de ak rouge bon sant alhamdulilah tout d'abord bon di leen jaajëfal comme ñu fi dajee donc danga ma gis juste ma ñëwoon fii doon xool benn bague en or voilà pour ma fiancée voilà je pense qu'elle la mérite et tout tu penses qu'elle la mérite sa fiancé bi pour man sax marié nga. bon pas encore mais incha allah d'ici peu hein. c'est obligatoire que nit ñi dañu war a jox seen fiancé yi cadeau wala seen bon je dirais pas obligatoire mais juste peut-être un devoir aussi voilà parce que boo nekkee nit bon koo xam ni jàppale na ci lépp je pense que lépp loo am war nga ko mën a partager ak moom et ce que je fais là c'est pareil pour elle aussi hein je pense en ce voilà donc euh, jigéen la aussi bu dul dara même bu doon sax sama xarit dama leen di offrir des cadeaux donc sus donc je pense que c'est aussi obligatoire pour une femme que j'aime quoi. Euh, dugg ci magasin bi tamit di jaay ay yu baax gis nañ fi ay cuuraay gis nañ fi ay euh, parfum de chambre gis nañ fi ay nuisette lépp a ngi ci biir daal baax baax bu jigéen war utiliser pour bégal jëkkëram tey ci fête bi rek mi ngi fi ñu ñëw fekk fi kii jaay abo nuyu naa. maa ngi lay fay. nga nekk fii di liggéey macha allah. macha allah tey di nekk jour Saint-Valentin Saint-Valentin ko xam ne fête des amoureux la euh, sénégalais yi fonk ko loolu di ko féete. Mhm. parce que tamit bas boo gis bés boo bés boo gis bu ne am na màggal te nit boo ko bëggee da koy wane. yaa ngi dégg soo bëggee si alaaji comme bés boo wane jël ne Saint-Valentin wane sa mbëggeel du dara wane bu nag mooy il faut que nga ñëw xool décoration yi ay pétales de rose. xeet baax baax yi boo des fois suñu dugalee bureau woon lay garaaw parce que tey si yoon lal yi dafa war a dajeeku. tey yi ma fi gis moom damaa joomi ba ma ñëwee. armoire yi dafa war a dajeeku carrément kaas yi toj coiffeuse yi rajax parce que tey guddi gi war dafa war a belli ku ne wane sa bopp nag carrément maa bëgg bëgg du ay caaxaan. fii moom tey moom ku fi dugg macha allah sa aajo dina faju parce que comme ni mu ko waxee rek pétard rose yaa ngi fi. ah yu may ñambat business le coin de Marie boo ko bëggee dëgg-dëgg mooy photocopie àjjana fii la lépp lu xeet baax-baax lépp lu jekk war a soxla si biir néegam lépp loo xamante ni jekk war na ko soxla boo ñëwee fii incha allah dina la defal am na lépp am na lépp lépp àjjana da leen ko amul waaye photocopie àjjana moom mi ngi fi

mais euh, gisoon itam dafa am limite dafa am fu ñuy yem cadeau yi c'est normal certes mais am fu ñuy yem tamit bañ a abuser bañ a wane ni ay marié lañ parce que célibataire la ñu wax wax tu en couple wala marié léegi gisoon ni dañu war a am fu ñu yem xam ni marié dafa war a def leen yi célibataire bi def yenn yi cadeau yi moom c'est normal. bon je dirais pas que y a des limites bon si on peut distinguer entre les mariés et les célibataires non l'amour bon sa ça ne se différencie pas euh, donc ça dépend rek nit ki boo ko bëggee rek même sama yaay et tout donc barki démb laa jógee ci moom donc je pense que je pourrais le faire aussi à ma petite amie tu vois euh, je dirais même plus qu'une petite amie hein je dirais ma femme incha allah d'ici peu quoi. am na lépp am na man. mën a féete waruñu féete dañ ko fii tey tey dina bëri góor góor ñu jooy guddi ay góor dina bëri gars yi jooy guddi gi tey. waaw pa macha allah macha allah dëgg yàlla parce que gars yi moom gàllankoor ñu ngi sëy bu baax ñu ngi sëy bu baax macha allah rabbi ñu ngi ñëw. ñu ngi jënd et puis macha allah ñu ngi toppatoo seen alaaji yi wax dëgg yàlla vraiment quoi. di nekk bés boo xam ne dañu war a sagal jigéen suturaal jigéen euh, wan leen seen mbëggeel tey ñu dégg benn ñu fort ci weeru béy ni Sané Madio benn mooy xale bu jigéen boobu ne Sané Madio jëkkëram da ko cee may baat parce que wax jooju mu wax def erreur tax na jëkkëram may ko ci baat loolu lan nga ci wax. non kooku dafa xamul rek parce que jigéen tamit dañ koy tëral mhm. te itam jigéen mooy yaay te itam jigéen mooy aljana quoi. kooku li mu wax noonu dèjà ñun sénégalais yëpp ci kontaan parce que dañoo nekkoon tolloon benn moment moom ñëpp da doon yëpp dañoo stressé woon sénégal ñoo indi coupe bi mu indi benn wax jooju comédie la sénégalais yëpp di ko partage kontaan ci déree kooku vraiment moom da ko si yóbbu yóbbu yokk garaatam yëkkati dara jox ko teral ko ak simplanté bi ñëw mais li mu def noonu vraiment képp kuy góor doo ko rafetlu. rafetul ci jour Saint-Valentin. vraiment dafa ñaaw dafa ñaaw même bu dul Saint-Valentin bi sax dafa ñaaw quoi parce que li mu def noonu dara yàqul dara da wax moo bi nekk moo ko ji gars ko di ko partagé muy neex moom waa ji loolu normalement da ci war am certification bu mag kontaan ci jël jëkk jabaram teg ko benn niveau parce que tamit ci wax jooju rek réseaux sociaux yëpp ñu ngi ko partagé te itam wax dëgg yàlla am na ci lu ne parce que ko jàppale ko ak pam bàyyi quoi xëy sëy du ay caaxaan yaa ngi dégg jigéen ñu moom vraiment ñu ñu nekk ci milieu bi xam na ne xale yi ñu ngi def lu ñu mën parce que dañuy financé bu baax seen biir néegu sëy man xam naa ci dara ñëw fii yow mi nekk ci milieu bi di liggéey ci lii xam nga yow lu la jommal yombul lan la madame di la pareel laay leer dafa am def ay jaagar jaagar yu baax ah man tey est-ce que du ma feebar li ma gis mi pare pare ni guddi gi ah. waaw laay maye madame moo la ëpp li mu def nii tey pour néeg ba su ma duggee ba suba naa xëy si te maa déclaré malade. mais jëkkëram moo koy jaay moo ko jox tamit. waaw dëgg la mais xale bi dafa yor ay ngelaw ji garaaw. lépp ah madame baal ko na defal ndànk-ndànk parce que sa jëkkër ci milieu bi la nekk mooy jaay yu baax yi comme dara mënu ko jombal. sama xol laa ko def moom rek laa bëgg j'aime ma femme dama ko bëgg waaw euh, wax dëgg yàlla ko bëgg trop te mi ngi def tout tout tout tout pour man te itam moom xam naa ne man moom rek la man man rek la loofu te man moom dañuy dund naturel loofu leer laa la tegal ku ma bëgg la non jeex na chaque gi xam naa dañ koy màggal tey rek xam nga wàcc def bu sew ñëw tëdd xam nga mu def ay jaagar jaagar ñu partagé fi laal def lu ñu neex guddi gi suba amul liggéey